docteur Famara Sané ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ah, maa ngi nuyu. Mm-hmm. yow ngay docteur en sciences politiques euh, chargé des cours en relations internationales tey ñu waxtaanee euh, sommet bi nga xam ne day ubbi ci àjjuma ci ca Accra ñu fas yéene waxtaanee euh, Mali lan nga foog ne mooy ruuse wala lan lañ mën a xaar ci bileb sommet. oui sommet bi xam nga à un moment donné suñ sous-région bi dafa confronter à des situations de conflit et de coup d'État. Mm-hmm. donc gis nañu am. Euh, euh, qui amul jàmm au Mali euh, également Guinée-Bissau a failli basculer dans dans dans la même situation Guinée-Conakry loolu yëpp leneen mu ñëw na encore mu loo xam ne moom day situation bi mooy la guerre qui se guerre boo xam ne xeex boo xam ne mu ngi déroulé au niveau de l'Ukraine entre la Russie et l'Ukraine ndax tey yaakaar na am gannaaw ba ñu euh, woowee ci ndaje bi ki nga xam ne moom mooy euh, président euh, Assimi Goïta oui Assimi Goïta wax comme ni ko waxee rek xam nga président africain bu ñuy instauré sanction yi mm. ñoom sax xam nañ ne situation bi dina dina métti pour ak pour seen dëkk seen économie yi mm. loolu moo tax ñoom au départ bi dañu bëggoon waxtaan juboo euh, entre ou bien ñu euh, ñu am benn programme d'action boo xam ne dinañ gis euh, président Mali la junte mooy militaires yi nekk ci ci nguur gi mm-hmm. ñu ñu fixé benn calendrier boo xam ne bu gàtt boo xam ne négociation day gaaw pour que vraiment la le Mali retrouve un gouvernement civil mais comme junte bi tam am na programme am bi la junte également moom wóor na ne eh, sanction bi du nekk maali seulement mais dëkk yi tam dina dina dinañu am eh, eh, difficulté. kon euh, bu ma la déggee bu baax dafa mel ni tey euh, CEDEAO ña ko ŋànk euh, te sanctionné woon tey Mali ñoom ñoo gën a am jafe-jafe ci sanction yi. pas ñoom ñoo gën a am mais ñoom tam vraiment seen économie. yëg nañ ko dafa yëg nañu ko de manière notoire parce que boo jëlee exemple Sénégal ex Sénégal ak Mali. yi eh, ñun fii souvent dañu ne produit bi par pour la fiabilité ni produit bi Mali ma produit Mali la donc daa day day yóbbu client bi day pour génde parce que xam nañu peut-être que dañu xeeb loo xam ne moo la jege. Mm-hmm. Eh, di préfère payer un produit étranger donc euh, ñun eh, économie boobu Sénégal léegi xa ah, yëg nañu parce que déjà euh, denrées yu bëri commencé nañu ñu vraiment jël benn euh, flèche boo xam ne commencé di nekk di cher trop. daan nañ gis ne bu ñu sanctionné normalement ki ñu sanctionné moo war a topp ci ginnaaw ki ko sanctionné euh, di ko neexal euh, pour mu yëkkati sanction yi mais tey dafa mel ni CEDEAO contraire bi lañ gis CEDEAO moo topp ci Mali di ko mocc di ko seet di ko di ko di ko di ko di ko nemmeeku ndax tey dafa euh, firnde ne décès justement seen premier ministre bu yàggul bi ak seen ancien président moo tax mu am taxawaayu yërmande gi. oui comme ni ko waxee rek ni ma ko waxee ñoom xam nañu ne sanction bi ñoom dinañu sonn ñoom ñooy gën a sonn mais euh, xam nañu ne euh, sanction bi tam du du yem ci Mali mm-hmm. euh, dëkk yooyu tam dina dinañ am difficulté mm-hmm. loolu moo euh, des cas ils, ils ont essayé de temps euh, def nañu lépp pour ñu attirer attention chef d'État yi mais mais comme la communauté ay communauté politique daje nañu. Mm-hmm. donc ño ñoom ils ont essayé d'appliquer maintenant tey gis ñu ne euh, dëkk yooyu dëkk yëpp dañuy sonn. Mm-hmm. Mali moo gën a sonn mais ñun tam sonn nañu te à la longue bu bu affaire bi continuer surtout ñu ngi dem ci ci koor gi. Mm-hmm. Euh, Sénégal tam dina sonn. sinon moo gën a sonn Mali. waxtaanee la xew ca Russie Euh, ñu gis ne euh, mat na weer ba Russie duggee ca Ukraine euh, jàmmaarloo yaa ngi am ci yenn diwaan yi tey au plan géopolitique nan lañ ci mën a jàpp nan nga ko mën a jàngatee. au plan géopolitique au plan international amul benn impact avec pays africains yi. Mm-hmm. mais au plan au niveau européen parce que xam ngeen ne am nañu benn intégration communauté européenne boo xam ne moom am souci am tam euh, ma mooy nay di yaatalal seen seen bi boo di intégré mm. te ñun gis nañu Russie moo nekk euh, moo nekk ci digg bi quoi euh, état tampon la boo xam ne moo séparé la Russie du moins l'Ukraine mm. moo séparé la Russie et les pays occidentaux mm. léegi nag autant boo xam ne moom alliance militaire la boo xam ne ay kuréel boo xam ne militaires regroupé ku am problème rek ñëpp daal ci sa sa sa sa kaw mm-hmm. donc euh, autant peut-être que amoon na rép euh, kii euh, autant amoon na réponse Varsovie mm-hmm. comme Varsovie existé wul léegi nag communauté des états indépendants boo xam ne amul doole noonu et que au-delà de ça Russie bi dafa war a nekk un état tampon loolu la ñuy waxtaan ci sommet de de de mais malheureusement sommet boobu Russie erreur bi ñuy def ak occidentaux yi pays pays occidentaux am amuloon benn kayit boo xam ne boobu la ñu signé mais c'est une promesse verbale boo xam ne euh, jusqu'à te promesse boobu moo tenir mais maintenant gis nañu euh, population euh, Ukraine da dafa dafa dafa bëgg a am une certaine autonomie. Mm. une certaine liberté donc donc ñoom seen souci bi mooy ni nañu intégrer communauté européenne te euh, russe dafa ragal loolu bu intégrer communauté européenne tubaab yi dañuy du moins occidentaux dañuy jege sa frontière am te loolu menace la au plan militaire au plan géopolitique. tey ndax waruñoo xaar benn reconfiguration géopolitique. Euh, ci mbir mi. reconfiguration obligatoire il faut loolu am dina am reconfiguration parce que gis nañu ordre mondial bi moo moo changé. Mm-hmm. donc ordre boo xam ne à un moment donné am États-Unis moo moo doon moo doon dominer ñëpp. Mm-hmm. Euh, ak les puissances occidentales tey gis nañu euh, émergence au plan économique Chine mu ngi positionné mais également au plan économique et à la fois au plan militaire. gis nañu euh, Russie euh, ñëw na donc euh, nouvelle ordre la parce que ordre de quatre-vingt-neuf à nos jours ordre boobu boobu la ñu déstabiliser et loolu baax na pour les pays du tiers monde dañu mun a tirer profit di di appliquer seen politique de non alignement et mun a commercer ak ñi ak ñee kon da nga bëgg ne euh, guerre bi dafa montré ay fay ku nekk xam kan mooy kan. waaw guerre guerre bi da léegi dafa dafa montré clairement parce que gis nañu même euh, ci sommet euh, position Afrique boo boo dëkk yu bëri ci Afrique dañuy dañuy aligné derrière la Russie ou bien dañuy adopté seen position de neutralité. Mm-hmm. loolu da mel na ni comme si dañuy appliqué seen politique de de non alignement donc loolu baax na pour économie africaine chef d'état yi de ñeme nañu donc dañu peut essayer de tirer profit pour mun a vraiment euh, euh, centrer seen comme seen activité commerciale euh, entre les deux partenaires c'est-à-dire le camp occidental et le camp oriental. Mhm. bañ am bañ am une domination d'un camp sur l'Afrique. c'est vrai que autant dafa am benn position de principe. awale ci choix des alliances mais ndax loolu garantir na sécurité. non gar ga ga ga garantie sécurité bi quoi actuellement gis nañu ne position OTAN bi euh, moom OTAN euh, Euh, moo gën a bëgg na négociation. Hmm. il faut mu négocier sinon euh, leadership bu mu occupé leadership boobu daf koy perdre. Hmm. donc il faut mu négocier parce que ñoom bu dee affaire bi pour la première fois même ñoom ñoom def nañu ko Irak def nañu ko Syrie donc ñii tam def ko en Ukraine donc euh, je pense que. la communauté euh, sinon les puissances occidentales ñu ngi ci disposition boo xam ne euh, dañu il faut ñu négocier sinon seen leadership moo moo moo moo wala frité kon daal mooy euh, OTAN wala sax Europe parewul pour jàmmaarloo frontalement ak Russie. non quoi kii frontalement daje xeex armée contre armée entre puissance occidentale ak Russie man je pense que loolu du am. Mm. parce que ñoom ñoom seen dynamique la quoi donc même depuis guerre froide bi ñuy gisee à février menace bi dafa réel ak parce que dëkk bu nekk euh, dafa am arme boo xam ne arme dangereuse alors ñu ñu instauré principe de coexistence pacifique mooy nañu waxtaan Mm-hmm. nañu waxtaan boobu nag ta waxtaan boobu mooy indi paix bi donc jusqu'à quatre-vingt-neuf à la chute du mur de Berlin donc logique boobu la ñu am maintenant pour faire fonctionner leurs usines ainsi de suite ñoom dañuy ut ay pays par ay pays euh, yoo xam ne foofu la ñuy alimenter foofu la ñuy jaayee seen arme parce que euh, seen accompagnement économie euh, accompagnement ci guerre bi accompagnement bu ñu bu ñu joxee à l'Ukraine accompagnement boobu may leen non ay contrat la donc l'Ukraine dafa war a au de cette guerre Ukraine moo war a moo moo am de lourdes conséquences parce que euh, euh il faut mu rembourser le euh, accompagnement bo une bonne partie de cet accompagnement que ça soit militaire ainsi de suite donc euh, Russie mooy kii mais américain euh, euh, ak européen ñoom dañuy tire profit mais ñemewuñu dem directement à une confrontation ceci voudrait que aujourd'hui avec armes yoo xam ne ñoom ay armes dans dangereuse c'est c'est ça serait la fin du monde. di ñaan yàlla lii mu jeex waaye tey bu ñu fi jógee ndax dinañ déggati ci ordre mondial. Mhm. Euh, kii moo nekk fii kii moo nekk fee euh, ndax melul ni carte gi gën naa jaxasoo tey. ah non carte carte mais mais carte bi da dañ ko réorienté ah. euh, carte bi jaxasoo mais dañ ko réorienté parce que bien comme ni ma ko waxee rek. puissance occidentale ñoo doon dominé léegi nag nouvel ordre la parce que ordre bu nekkoon foofu depuis quatre-vingt-neuf ba léegi mooy ordre boo xam ne c'est marqué par euh, la domination des États-Unis et du du camp mm-hmm. léegi nag gis nañu ne avec euh, de la Chine mais également de la Russie particulièrement euh, euh, seen euh, seen puissance boobu seen émergence boobu s'est manifester à travers la guerre donc gis gis nañu que bi c'est dominé par il y a au niveau de de, de l'ordre mondial est marqué aussi par l'émergence de de la Russie de la Chine mais également des États-Unis nouvel ordre la quoi boo xam ne du benn camp moo dominé mais am na plusieurs pôles pôles yooyu ñoo ñoo ñoo ñoo mën a apporter équilibre au plan international pour que le monde puisse vraiment vivre en paix. docteur Famara Sané docteur en sciences politiques chargé des cours en relations internationales ñu lay jaajëfal euh, bu baax a baax. merci beaucoup merci madame.